salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum boos nii la lii laa bëgg man lii laa bëgg di gis di daan doole di ambulant jaal say jaay say calçon yaa ngi di calçon yi commander ma ci vingt wala trente lii laa bëgg waaw kay mais ay jooy rek danoo sonn ci jooy yi ak plateau yeeg yaa ngi dégg nii laa bëgg nii ummi ngay sol lu jot waaw del sol jiin yu gudd yooyu waaye di sol sorti yu gàtt yi nii waaw yàlla jàppal leen dafa leen jàmm man soxoruma de ku baax laa lii laa bëgg waaw mais jooy yi lan sonn ko maanaam ak yelwaan gi noonu la demee